fu ñuy woote fu ne ñooñu di yor saak di mbubboo tëyër maanaam lu fa lu état def pour maanaam euh, sunu secteur bi ñoom am na ñu jot ñu ngi yor seeni saak ñooy jël yëpp yóbbu buñ nee foire ñoo siy dem ñii di ko jël di ko jaay loolu dañoo bëgg mu jeex président Macky Sall man bu ma waxee président Macky Sall damay wax état nañu arrêté yii ñuy def ay milliards mi ngi dugg suñu secteur bi li gën a tuuti rek mooy aide Covid bii cent cinquante mille la woon amul benn tailleur bu mën a muus ak moccat ba edd bi ñu defal xanaa euh, maanaam euh, les musiciens nga mën see bénéficier wu. mais aide Covid bi ñu def nii cent cinquante mille foo tegalee téeméeri tailleur maanaam ñaar si am sa nit li moom nga wax ko publiquement mais jox ko ko ndax fi mu nekk nii foofu la ñu toll. def nañ fi tournée nationale wër xanaa car maanaam 45 départements yi nekk Sénégal. ak suñu maigre moyen ne na leen jaayante na saaba yi waxoon bu ñu dem ñetti paas la ñu yor ñetti xaalis la yor benn bi dañ koy def dépense suñu kër benn bu ñu def ko dépense muy fonds suñu atelier benn bu ñu jël ko muy depanse boo xam ne moom la ñu àndee def ci wër wër Sénégal pour lan def la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ak jamaatu rahma nañ leen booloo bu ñu booloo lu ñu song daanu mbaa lu ñu song daan ko ndax fi mu nekk ni kat nit ñu piétinee dafa ëpp ñun ñuy jàpp di ñu nappaaji di ñu joggi sa loolu dafa war a jeex sama sëriñ mi ngi koy wax léegi si affaire u fëgg jaay Côte d'Ivoire tailleur ñoo fexe ba loolu jóg fa mais Sénégal dañoo bàyyi ubbi bunt yëpp lu neex waay def Carrefour de la mode la ñu wax Carrefour Carrefour maanaam ñaw la ñu waxoon ni mooy Sénégal léegi dem nañ ba mujj gi maanaam dafa mel ni grillage ku ne jëp ku ne jaar ku ñu dem sa ñun artisan yi buñ fàtte ni ki dem ci daara ji xelam neex na wala naqari na wala ku dem jàngi école xelam neex na wala naqare na wala sax tubaab wax benn baat naan dafa turbulent kooku tailleur bi moo koy jël insérer ko ci société bi fexe ba jàngul ko métier ndax nit bu amul métier dignitéem day manqué ak risque yu métti nag kooku bu demee ba jàngi métier ba pare bu ñuy ñëw di jàngi métier nijaayam du fa ñëw yaayam du fa ñëw benn xaritu papaam rek naan ko indi ma jox ko sama xaritu tailleur bëre parce que jëluñu mbir mi au sérieux kañ gis papaam wala yaayam boo demee ba gis xaale bi ñëw daal ni mankat léegi mën naa ñaw lu àgg ngay doog a gis xale bi papaam ñëw ñu ne yóbbu ko mu embauché ji yooyu ñun tailleur yi ñoo koy def. il faut état senegal xam ni Barça wala Barsaq bu ñëpp meloon ni tailleur yi Sénégal yi loolu du am ñu ngi souffrir Covid bi ñëw nag doggali ñu Covid bi li muy metti metti kenn ku ne magasin ba nga nekk amul benn weer boo ko jëlal. da mais lan la jox ay ni cent euh, location magasin mais ñu avons ak suñu ngor ak dignité pour xamni la yonent bi waxon rek mom def muy watane iman bëgg sa si jaamu yalla bokk ñu bëgg mais nous nekk ni nak dafa wara stabilité bi ma doon wax fa heure manifestation amna. téer bi fermer sa place ndax lan bu ñu la tojalee sa vitre yaay perte wala boo ko ubbee tamit client bi waroon ñëw dootul ñëw ndax daanaan yoon wi amul sécurité léegi kan mooy perdant bi téer bi sama war a joxe dépense kan mooy perdant bi téer bi sama yor ñu mu war a fay ay weer kan mooy perdant bi téer bi ndax lan am na yu bari ay charge yu yor muy courant ak ndox sama sox ajaabee wax na ko sànq bi ñu waxee ni maanaam dañuy subventionné courant bi si kër yi mais dañoo bàyyi xanaa atelier yi ba fi mu nekk li président wax sax ci affaire wàññi location bi magasin yi bokkuñu ci kon man li ma gëm mooy fi mu nekk nii ku xool ni may waxee nga xam ni li ma war a wax bu dee fukk la ñaar a ko génne ñaar laa wax juróom-ñett yi mënuma ko wax beneen bi ci gën a metti mooy da ngay gis téyër boo xam ni day xew nekk ci koñ di ñaw ñaw bu rafet ñëpp soxla ko benn bis lan moo koy dal mu jékki-jékki am problème katrak ay bëtam muuru sa loolu kenn nettaliwu man maa ko dund gis koo xam ne man bi may jàngi buñ ma waxoon noo bëgg mel man leen ni diw laa bëgg mel bi ma ba yor sama place diw moom laa gis xanaa marché kassor arrêt bi moo nag doomam jigéen di ko am ba ndax lan dafa silmaxa sa amul ko ko jàppale amuñu retraite amuñu amuñu amuñu amuñu kon nag fi mu nekk la ñu bëgg état suñu sañu bàyyi xanaa yi ñuy def ak suñu secteurs yi ndax li gën a tuuti mooy dem ci ay foire li gën a tuuti mooy fexe jàppale ñu nu ñuy def mais ki suur kay moo neex a yàkkal ki nga xam ni moom fexe na ba créer xanaa emploi yamul foofu créer ba maanaam former ay nit lan la soxla muy fond de lan la soxla ku ko encadré loolu du ko am se les denrées de première nécessité bu ñu waxee nii lekk la man d'accorduma loolu ndax nit mën na woor di dox kenn du ko xam waaye nit mënta dox sa solul yére kon ñuy wax état du Sénégal nañu gëstuwaat artisans yi plus particulièrement nag ñun tailleur am na benn bis iraniens yi grève l'Obélisque ma wax benn xarit mu ne xoolal euh, iraniens yi ni bëree fii mën nañu 200 ma ne ko 200 iraniens yi égal benn atelier de couture ay kii u fi gis mu toog nii président association la nekk maanaam yor mbooloo mu mag si ginnaaw nekk chef d'entreprise dañoo mujj suñu kii bi bi ñu koy def ñu ne région yi nañ wax par benn membre mu ñëw teew parce que ñëpp xajuñu fii kon nañu wax ni xam nañ bu baax fi ñu jëm xam nañ bu baax li ñu bëgg te xam nañ lu ñu koy may wax mu àgg nag dafa ko moom kon nag damay wàcc sama kàddu jox xanaa sama jigéen ñu baax ñi ñu sànni seen kàddu ndaxte lu dul si nag bi xajul si cin <coughs> bon dafa am lu ma fàtte woon rek waaw effectivement bon dafa am benn projet boo xam ne bu ñu wax